jërë ngeen jëf fu tëj gi ñu tëj Khalifa Sall ci kaso bi Serigne Pape Malick si nee na tooñ ko wax jàngi ci l'observateur ca ndajem siyaaratam xarit gi ñu doon def démb ca Tivaouane Serigne Pape Malick mi amee kàddu njabootug Seydi Hadj Malick bi mu jëlee kàddu gi ca la waxee loolee wax nay ne Khalifa Ababacar Sall li ko dal na ko jàppee dogalu yàlla sunu borom porte parole Khalifa général des Tidianes gi ne Tivaouane Macky Sall la ñu àndal moom la ñuy jàppale ngir mu am deuxième mandat ndax li mu liggéey ci dëkk bii di Tivaouane tax na benn taalibi Tidiane waru ko woon ginnaaw Vox Malick Sy nee na li Macky Sall defal waa Tiwaawoon benn président mosu leen koo defal du Léopold Sédar Senghor du Abdou Diouf te du Abdoulaye Wade looloo tax ñu fas ko yéene jàppale ndax ku la nekkal ci naaj wi da koy nekkal ci keex gi Le Quotidien nañu Tiwaawoon pare na nañu Macky Sall moom la ñu àndal moom la ñuy jàppale Source A ak yan taalibe ndax du taalibe Tidiane yëpp ñooy foobu dem ànd jeeg Macky Sall nekku ne xam ne ne parti bi di pur Serigne Moustapha moom ci ñoom la bokk Serigne Mansour Sy Jamil borom bës su ñàkkit ci ñoom la bokk te ñoom ñëpp am nañuy taalibe yoo xam ne ñoom la ñu àndal taalibe tijaan ñooy parrainé Macky Sall direct info nañu kuréel gém bu sàmm yi ci réew mi mu di association nationale des éleveurs du Sénégal ñoom parrainé nañu Macky Sall jox nañu ko seen lépp ba jeex tàkk journal bi nañu loolee nag su amee nañu ko gërëmee docteur Cheikh Kanté moo ko dékanté moo fexe ba Père Ndiaye sàmm yi ci réew mi di éleveurs yi ba ñu nangoo ñëw jàppale Macky Sall ci deuxième mandat bi muy wut nañu wutali l'observateur mi ñu xamal ne li ñu doon wax naan dafa amoon ay gendarme yu demoon ca siège bu parti Ousmane Sonko bi ak ca kër nday Ousmane Sonko di fa fiches parrainage yéenekaay bi nee nañu coow loolee am na leneen lu ci amaat am na juróomi militant yu bokk ci parti Pastef di parti Ousmane Sonko bi woowoon nañ leen ca gendarmerie déglu nañ leen ñoom it def nañu fa ay révélation yu garaaw su lii fa ay mbóot yu yéeme waa jii di vieux Sonko nee na enquête kat yi ci gendarmerie ñëwoon kër ga doon jël si fiches parrainage yi am na ku ma ci xàmmee ndax ñoo defandoo formation militaire Les Échos nañu vieux Sonko nee na ca gendarmerie yi fa ñëwoon am na kenn ku mu ci xàmmee gendarme ba Nicolas Mendy la tudd wax na it ne wata ba jël na plaque ba ba DK 44 89 B la Biram Souley Diop mi administrateur parti Pastef Les Échos ne nañu moom it convoqué woon nañ ko ca gendarmerie def na fa ab diir l'observateur nañu waaye li ñu koy waxal naan ba mu jàkkaarloo ak gendarmerie daf na leen gaañu ñoo ma dugal ci erreur Biram Souley Diop weddi na ko ba mu set wecc nee na Moussa wax loolu fa mu taxawoon fa la taxaw moom Biram Souley Diop administrateur bu parti Pastef réew mi quotidien mi ngi ñuy leeral li tax ñu demoon jëli ko yóbbu ko gendarmerie ay wota blindé anti émeute yu bari rangaloo ci yéenekaay bi dañu juróom benn fukki watay ko jëndi ci réewum Turquie daanaka A nañu ci jamono ji ñuy waajal élection présidentielle amoon yéeney turbale réew mi tegaat ko ci suuf ndax gaañi caaxaanuñu ki ñépp maasé ne amuti caaxaan di Demba Ba moo nekk ci journal Record footballkatu Sénégal bi di Demba Ba xëy na di waxtaan ak journaliste Record yi Demba Ba nee na génne na ci xelam équipe nationale bu football bu Sénégal xalaatatu ko sax Aliou Cissé da ko beddi faalewu ko ginnaawal ko ba noppi waxu ko dara mu ne waa record ni Aliou Cissé yore équipe nationale bu Sénégal am na ci ay mbir yu bizarre yoo xam ne kenn xamul lu muy nuru Demba Ba ne équipe nationale bu Sénégal bu football bi ñu gis mënut a gagné CAN 2019 bi